lại ndeysaan lay njaan si faw jan waaw waaw ziare waa njaan ñëpp leen jaajëfal ñoom ñoom leen wax ne lay njaan mooy samp bëjën noonu lay njaan naa si faw jan leen ni ngeen ne caajaay kii mooy lay njaan na yéen waaw waaw lay njaan xanaa da ngay dessiné ndeysaan ko koy laay njaana yow tey lay waaw waaw